alquranul karim bi bismillah yaa ngi feegoog Serigne Fallou Mbacké Serigne Gallas Kaltoom Alaaji Baara Aliou sa jotaay bi dégg na PDG Aliou Touré moom it ñëw na bàyyi ko Ndakaaru liggéey lay def jaamu yàlla dimbali le PDG wa iyyaka nasta'in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 وكفر بتلاوته عنا سيئات إنك مجيب دعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سيخ لسان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 ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسهل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسقنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة نعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصايفنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الخير ومنقصنا في الفتنة واعصمنا به من الزيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآسالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبر سجال عصفك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك زهرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح عبدك الشيخ محمد فادا مكي اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح عبدك الحاج بار مكي فلل لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خلصا ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا مما تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطلوبا برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 Baara Fall imaamu Aliya jàng na ñeent fukki kaamil moom dong nga nekk Aliya ak dongay daara ya ak yeneen kaamil yoo xam ne tamit ñëwaguñu lépp nag Alaaji Mamadou Lamine Baara nee na da koo joxal Serigne Fallu mi xam ne mooy sëriñam ba addiya ñaanal mbokki jullit yépp أنا هو كتالي بيت أغريو ميت يريتف من صلو لول من صلو أمد جنب جرن أبد فهمني علما وزدني علما وعملا وأدبا وفهما صدور قوم يصرحا بالدين والنور والإسلام كل حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu nuyoo bi islaam di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi ci turu Sëriñ Fallu Mbàkke moom Soxna Xadi Géey di tënk rek li waral jataay bi li waral nu dajale fi mbooloo mi sababu daje bi weesu lu dundal ndigal ak wëllëre jataay bi li ko sabab Cheikh Mamadou Min Baara moom Cheikh Mamadou Fadil moo joxoon ndigal sëñ Garas mii ngir mu dundalal ko te sàmmal ko wëllëre wi nga xam ne moom la fi bàyyi te jële ko ci Cheikh Mamadou Fawda xam ngeen ne tund Kër Maysa Sëriñ Fallu amoon naa ak ñoom alaaka yu dëgër yu yàgg ginnaaw Cheikh Mamadou Lamine Baara day xeeñtu jéego yi Sëriñ Fallu fu mu tax ku mu wëllërenteel muy sàmm loole ci sàmm kóllëre googi ci la jaxasoo waa tund wi ba jël fi soxna ngir dundal wóllëre woowu yi nag ci la sëñ galas mi yàlla dogal mu feeñe fi ci dëkk bii xam ngeen ne ci at yu mujj yi Cheikh Mamadou Baara moom moo ko war boppam ba mu ñëw mu ne ko dellul fële ca sa bokk ya ca tund woowee kóllëre googu yi nga xam ne Cheikh Mamadou Lamine Baara doon na ko sàmm fii ngir jëmmi Serigne Fallilou ah nga wéyalal nga wéyalal ma kóllëre googu yi demal fa sa bokk ya nga xamanteeg ñoom te jaxasoog ñoom ndigal loolu ma waral. sëñ Fallou mi ñëwoon fii nag daa bokk yi di leen gane ji di nuyoonteeg ñoom ba yàgg mu gis ne bis boo xam ne mooy gën a yaatu bokk yëpp man fee teew bokki jullit yi bokk taalibe yi muy bëgg a dajeeg ñëpp nag tax mu sàkkoon bis bi waaye itam mu defoon ko bisub ñaanal Cheikh Mamadou Lamine Baara mi nga xam ne moo ko boole ci Serigne Touba waaye itam nag moo ko joxoon ndigal lii loola mooy sababu bis bi tey bu jotaa nag ginnaaw bu mu wëree bokk yi wër tund wi ak wëlëre yi Cheikh Mamadou Lamine yi nga xam ne xam na leen mu ànd ak ñoom jàpp bis boo xam ne kenn dal lay doon ngir ñaanal ci Cheikh Mamadou Lamine ñaanal ci. ay bokkam waaye ñaanal ci jullit yépp ñaanal ci réew mi waaye nag mu di ko def ci yaari anam benn bi mooy li jëm ci wàllu spirituel ak temporel xam ngeen ni bis bu jotee dañ fi def journée médicale di fi maye ay garab di fi joxe ay sànke li dimbali nit ñi ci paj loolu jàpp naa ne lu am solo la te participer la itam nag ci développement sam réew te Cheikh Modou xam xam ne ku amoon ouverture la ku ubbi ko woon la mu roy def lu mel noonu nii bu yendoo loolu boole koog njàng alxuraan bi nga xam ne daana jiitu bis bi bu bis bee ñu mottali njàng moom yi xam ngeen léegi rek la imam bi te xutba bi nga xam ne ñoom naka jekk dañ koy def fii fukki kaamil ak ñaar fekkoon na Cheikh Mame Lamine Bara Fall ca Aliya jàng ak waa daaram ñeent fukki kaamil am na yeneen daara yoo xam ne waxoon nañ ne danañ jàng te jàng nañ waaye seen lim jotuguma ci kon loolu lépp rek buñ ko jàngee ba noppi dañ koy jëbal Cheikh Mouhamadou Lamine ginnaaw moom sëñ la gënoon a bëgg ci lu mu doon ñu joxal ko Cheikh Mouhamadou Fadil adiya mu joxoon ko Sëñ Tuubaa moom génn ci fasal ci nag mbooleem jullit yi mbooleem réew mi waaw xam ngeen ne itam ren dañ cee boole jamono yi ci ginnaaw natt bu yàlla nattu woon réew mi muy Covid bi fi jaaroon lu baree bari dañ cee wuy ji seen borom te da ca gën a waar ay kilifa dañ caa bokk muy at ñaari at yu metti naqari di ati nattu moo taxoon ren ñu boole ci ñaanal kilifa yooyu jiital len ci ñaara itam mbokk jur yëpp ñaanal nañ ci serigne Abdoulaye tiawlay ñaanal ci serigne Cheikh Ahmad Tidiane sek ñaanal ci serigne Cheikh Ahmad Tidiane ñass ñaanal ci itam mbokk yi nga xamne ci yoonu lañ bokk ni ki serigne Moustapha Massamba ni ki serigne Abdoulaye yallaay bu ni ki serigne Jili Mbàkke ni ki serigne Modou mukhtar ni ki sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Modou Fati Xari ni ki sëriñ Cheikh Jëmbu Fall ni ki sëriñ Mamour Mbacke moom sëriñ Massamba ñoom ñëpp ñaanal nañ leen ci ñaanal ci itam kilifa yu bari macha allah ndax alxuraan man na lépp àttan na lépp euh, loolu mooy li nga xam ne moo jëm moo jëm ci wàllu la ci sëñ Moustapha Ba Samba moom itam euh, moom laa jublu woon a wax loolu mooy li li jëm ci wàllu ruux lay la koy tëj rek ci wàllu ruux nga xam ne moo koy taaral tey lu mënta ñàkk mooy xam ngeen ne daje rek waxtaan ku ne dem a daje rek def ay ñam ku ne dem yomb na lool yëf yi sax ñu koy def. ñu gis ne bu daje amee war nañoo xool lu yitteel réew mi yitteel askan wi yitteel njaboot gi yitteel réew mi sëñ Galas participer ko ci liggéeyu Cheikh Oumar Alioune Bara ci jaam yàlla yi waaye nag jàppale mu Mountakha bi nga xam ne dafa woote jëme ci xam-xam boobu bi daaraam juré woo juré ji dinaan woo xam ne yàlla na ko mat ni ci jàmm tan ànd ko moom looloo waral nag muy def bu bis bi jotee mu xool lu jamono joojee mu xool nan la ñuy mën a saafaraa jamono joojee yan médicament lañ mën a jële ci màggal gi ci turu soxna bi Ndeye Baara mu jëloon thème boo xam ne day méngoog jamono li ñuy woowee thème d'actualité mu ne woon ren day jël benn jullit ñi ak jàmmi réew bennoo jullit ñi ak jàmmi réew mi xam ngeen loolu jamono laaj na ko loolu bu ngeen toppee xew-xew yi am rawatina ci réseaux sociaux yi waxante yi ba ci suñ mbokki salafis yi ba ci turux yi sax ci seen biir ak ñi nga xam ne sax bokkuñ ci wenn yoon waaye dañuy mbubboo ñenn ci ñooñee di waxub safaan ab xaadir wala laayeen wala murit keneen di ca tontu te fekk kooka sax mën naa du yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne mi ngi ci réew mi te jëm ci wàllu pas-pas waaye itam nag réew mi nu bokk dama ne mënuñu ko séddoo xam ngeen noo ngi dem ci ay élection balaa yàgg ci ginnaaw rek weer yu néew am na lu fi xewoon ci mars bi lu doy waar nu bëgg nag waxtaan ak njaboot gi ci loolu lii ak dal ak xam kenn ku ne muy teg tànkam jàmm joo xam ne ñi ci kujje gi ak ñi jiitu yooyu ñëpp dañ koy set loolee nag la bi jël ne mooy waxtaanam mooy message bi muy jàllale bataaxel bi muy jàllale ci mboolem réew mi dale ko ci taalibe boppam dale ko ci waa Touba ak i bokkam ak mboolem réew mi muy jàmmi réew mi waaye itam benn jullit yi mu jëloon ko nag jox ko koo xam ne xani yoani taarif macha allah yal na ko yàlla dëgëral te xam-xamam muy Cheikh Sidi Mokhtar Ka xam ngeen ne ci ñi njëkk a génn ci kuréelum ñaareel bi dem bitim réew jàng yi te biñ dellu seenum njàng ñu jariñ ko yoon wi jariñ ko seenum réew seenum njàng weddi wuloo leen ci ñoo ñi la bokk tabaarakallaa bokk it ci kër gi moom lañ bëgg a jox jataay boobu mu tënkal nu ko naka lañuy def ba jullit yi nekk benn ba gën a bennoo naka la ñuy def ba réew mi am jàmm loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg a jox Serigne Cheikh Sidi Moukhtar Ka mu tënkal nu ko su ko defee wéyal jataay bi am na ñu ne sëñ may lim tudd ma ko kon Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Fallou bokk na ci ñu ñu tànn di leen ñaanal. jërëjëf Serigne Cheikh Abdou na solo lool ngi bëgg jox kaddu gi nag. Serigne Cheikh Sidi Muxtaar Ka mi nga xam ne mboolem yoonu murit nangul nanu ko xam-xamam ci sell ak mbaax ak yiw ko defee ñu teewluwaat ko bu baax a baax waaye di siyaar bu baax sunu waajur yu tedd yi di sunuy ndey aji xadi gay moom a ji baara noo ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax noonu la ñuy siyaaree tamit soxna aji xadi Njaay moom alaaji baara Mbakke Fallilu waaye noonu la ñuy siyaare tamit soxna aji maam Awa Ndaw moom alaaji baara Mbakke Fallilu yal na ngeen fi yàgg yàgg ci kanamu njaboot noo ngi leen di jox bu baax Mbakke seen wàccuwaay ndax yéen ah coow li coow li yéen yal na ngeen fi yàgg ci barkeb Sëriñ Fallu kon Cheikh Sidi Mokhtar moom de buñ ko teewloo tey jii ku fi jógee di nga am loo yóbbu waaye di am loo taataat sa buy bopp. général tok alaaji Mamadou Lamine bara tok mu nan sëñ fallu neena na bara neena nee siar ya, bu baax soxna ani gannar bintu Cheikh Mamadou Fadal ah neena dafa melni dañ koy rendre hommage ok kon dañ koy fatali ko yalla yalla dolli ci moo ay ngërëman yalla soxna Ndey fall mom Serigne Jiili mom Serigne fallilou moom it dañ koy rendre hommage yal yàlla dolli ci moom ay ngërëmal yàlla ak ay leyaal ak soxna maam Bousso Madina ak soxna Ndey Binta Mbàkke moom soxna moom Serigne Bousso moom Alaaji Baara ak Serigne Xaasim Mbàkke moom Serigne Modou Bousso Dieng yal na yàlla dolli ci ñoom ay ngërëmal yàlla ak ay leer te tas ci seen barke ci barke Ahmadul borom jàmm yi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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومن دعا بدعوته وسار على هديه بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي ginnaaw ba nu sante yalla sunu borom julli ci sayyidina muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ni ngeen di nuyu di len ziyara di jeta ci nuyu bi cheikh bin Muntaka Yalla yalla guddal fanam te dolli ko wer ba lepp lu mu tambali yalla ko agale di nuyu tam di ziyaara Serigne Abou Mbacke Falilou di nga xam ne moo Fadil ak mboolem jabootug Serigne Falilou di leen ziyaara di nuyu tam Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo toog di nuyu mbokki julit yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ndokkeel su soxna yu tedd yi nga xam ne ñoo nekkoon ci daara Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ànd ak moom di liggéeyal yàlla ba noppi koo gis yàlla yàlla guddal seen fan bàyyi leen ci kanam njaboot gi ngeen yal na yàlla guddal seen fan bàyyi leen ci kanam njaboot gi ngeen bijjante leen ba ca kanam di sant Serigne Fallou mi nga xam ne moo woote bis bi moo ay kilifaam yi mu toogal ci jataay bi ak i wëllëreem eh, woote boo xam ne def na lu baax dafa amoon ku ñëwoon ci أستغفر الله نقي ومن مقدور وسين سواء نوان dafa am ku ñëwoon ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal baqiya alayya min birri abawaya shay ne ko dama toppoon samay wayjur di leen liggéeyal ba noppi leen a gis ndax waccona ma ak ñoom wala amna lu des am lu amna lu des sa digënté ak ñoom mu ne ko aha tay amna lu des sa digënté ak ñoom dal ko koy limal ne ko assalaatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infadu ahadihima wa silatu الرحم التي لا توصل إلا بهما wa ikramu sadiqihima dana ko nopi na maa sama wajur ndax wàccoo na ma ak mom mu ne ko wala amna lu dess mu ne ko waaw lu dess moy de len ñaanal ndax ñaan du doy dee leen sàkkul njëggalu yalla te lepp lu ñu batale won da nga ca xar sa tanku tobe te na nga len jokkal seenu bokk te itam képp koo xam ne seen wëllëre la woon na nga fee na nga na nga feddali ga ngir jëmmam kon jataay bi bu ñu ko seetee yooyu yëpp daje na ci kon Sëriñ Fallu yow mi woote jataay bi ba euh, loolu lépp man cee daje ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk la ak wér yokk la ak man te guddal saw fan ba nga gën koo man ni ko sëriñ cheikh abdul ahad ka waxe nag dañoo nekk ci diine joo xam ne jàmm rekk la andi lislaam jàmm rekk la andi euh, bokk na ci li tax ñu xam ne lislaam jàmm rekk la andi mooy sooy nuyu sa mbokkum jullit da koy ñaanal jàmm danga naa ko yàlla na la jàmm dal yàlla na la yërmaande yàlla dal yàlla na la barkeeb yàlla dal kon sooy nuyoo da ngay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ki nga xam ne moom nga nuyu bu lay faytam ñaanal la li nga ko ñaanal kon lislaam diine jàmm la doomu aadama jàmm rek moo ko jig doomu aadama ñetti jaar-jaar la am mooy dafa ñëw ci àdduna nekk fi su ab àppam jeexee mu faatu dugg bàmmeel bu ñu walee bëfte ba mu dekki dem bis penc kon nit ki juddu ñëw ci àdduna jàmm rekk moo ko fi jig nit ki faatu dugg bàmmeel jàmm rek moo ko fa jik nit ki dekk ci bis jàmm rek moo ko jik moom la sunu borom di wax ne wa salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubaasu hayya kon nit jàmm rek moo ko jik wolof sax day wax ne jaboot jàmmay bokkam waaye nit jàmm rek moo ko jik bis bu ñu demee bis ba sunu borom boole ña ca way texe ya ba ñuy tàbbi àjjana te yàlla nañ ca bokk ñun su boobaa malaaka yi bu ñuy dalal baatu jàmm lañuy ñuy jëfa jëfandikoo dañuy wax ne yàlla na leen jàmm dal salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidi kon malaaka yi su ëllëgee jàmm rekk la ñaanal kon doomu aadama jàmm la war a sàkku jàmm la wara ñaan jàmm la war a fexe ndax jàmm rekk mooy mbokkam jàmm rekk moo ko jikk te jàmm su amul dara du sotti réew moo dem ci àdduna suñu amee jàmm mën nañoo développé waaye suñu amul jàmm dara du dox bu ngeen dee seetaan télévision yi gis réew yi nga xam ne dañoo nekk ci ay guerre di xeex da ngeen di gis na lépp day taxaw kenn dootul liggéey kenn dootul jàng kenn dootul dem ak dikk kenn ko nekk foo làqatu ngir rawali sa bakkan képp moom ngay tal kenn du tal a jaamu yàlla kenn du tal dara loolu nag bu ñu ko gisee gis ne am na réew yu mu dal te yàlla musal senegaal ba fii mu ne muy réewum jàmm kon jàmm jooju lu koy suuxa ba mu sax fi kenn ku ne ci ñun war na cee bay waar réew yi ñu wër rek du ma tudd benn réew xam ngeen am na réew yoo xam ne jàmm amu fa bis boo xëyee dégg ñu ne rey nañu ñeent fukki nit rey nañu ñaar fukki nañu juróom fukki nit ñuy reyante te la tax ñuy reyante ñun ñëpp xam nañu ko kon suñu ko moytoo daw ko yàlla mën naa def jàmm ji nga xam ne moom lañu am ci su ci sunu réew mi su boobaa jàmm rekk moo fi sax Serigne Touba nag nitu jàmm la ndax nitu jàmm mooy koo xam ne doo tooñ te la tooñ nga baal ko Mbàkke Kajoor la wootee manu na faa dëkk dëkk ndax Maam Mor moo ko sanc waaye dafa woo rakki Mamour Anta Seli muy Serigne Ibra Mbacke Mbacke Kajoor fekk ma nga ca wetu kokki dëkk bu ñuy wax ndal la mu jëli ko andi ko jox ko Mbacke Kajoor dikk Mbacke Bawol muy dëkk boo xam ne maamam moo ko sanc maam maaram mënu na faa toog waaye da ko bàyyee ñu ko séqal dem ci dëkku boppam tudd ko Daaru Salaam Daaru Salaam nag ku ne xam na ne baat bi li muy firi weesuwul këru jàmm këru yàlla mi nga xam ne moomoom jàmm te teewul muy ñaan naan ijaal salaamatan taduumu yaa salaam li yow wali iyaali fi daari salaam kon moom jàmm rekk la doon woote daana wax ne day leen moytu tooñ tey moytoo fay nga xam ne kon taalibeb Cheikhul Xadim wërta tooñ wërta fay te defe naa ne soo tooñul fayuwoo jàmm ne ñooy doo tooñ ci ku la tooñ nga baal ko soo ko sàlloo jàmm ne ñooy mu ne dee leen moytoo tooñ tey moytoo fayu ndax kuy tooñ du mucc kuy fayu du ñoŋ kuy fayu du am jàmm bu fekkee ku la tooñ nga fayu doo am jàmm kon jéggale moo gën a noppale moo tax bi mu gisee ne nit ñi kenn ku nekk da ngay bàkkoo faña bokk naan imam malik mooy waaja ñeneen imam ahmad ibn hanbal mooy waaja kenn ku ne di bàkkoo sawaay dafa wax ne man ñoom ñëpp ñii ngeen di bàkkoo man ñooy samay kilifa ñoom ñëpp laa yemale a'immati fil fiqhi malikul ali والشافعي والحنفي والحنفي والحنبلي kon ñoom ñëpp ñooy samay kilifa bu gisee ko naan man taalibe Cheikh laa wala man taaliba Cheikh Abdou Khadir Jilaani laa kenn ku nekk di bàkkoo sawaay te bu ñu bàyyee kenn ku nekk di farfarloo waayam du jur jàmm ci am réew ndax farfarloo day indi fitna kenn ku nekk ne sama waay mooy waaja day indi fitna bi mu gisee nag mel ni loolu dafa bëgg am mu ne man ñoom ñëpp samay kilifa lañu ñoom ñëpp laa jox cër ñoom ñëpp laa fonk مشايخي سيدنا الجيلاني وشادلي معه تجاني كون تالي دف شيخ الخديم دا فا ورا يمال بروم نيت تالي دف شيخ الخديم دا فا ورا فونك كليفاي دينا ييغا خامنا نيوكو جيتو ناخ موم دالينا فونكون بك جامو تاخنا دا لا واخنا دي لين مويتو واخه بكان ناخ كو واخه بكان ين فيولو تفيولو لو نك خنا كون سو nit ñi dañ lay tontoo bakkan am na bataaxal bu bind boo xam ne da caa wax ne képp ku gis mbind mii na nga xam ne man mi ko bind jéggal naa képp ku ma tooñ kon moom mës na toppante jéggal naa képp ku ma tooñ te du ma ñaan yàlla sax ki ma tooñ du ma ko ñaan yàlla dama koy jéggal du ma ne ko bàyyee naa la ak yàlla way dama koy jéggal na ñëpp xam ne maa ngi sàkkul ñi aju ci man maa ngi leen di sàkkul njéggalug yàlla daal ne waaye ñi ma koy sàkkule ñi aju ci man noonu laa koy sàkkule ñi nga xam ne itam euh, ajuwuñ ci man kon moom ñaan gi mu ñaan yàlla ñëpp la ko yemale ñi aju ci moom ak ñu ajuwul ci moom mu wax ne nit ñi li ñu mucc ci seen ayu loxo nañ ko mucc ci seen ayu làmmiñ ndax tooñ mën naa nekk ci loxo waaye tooñ mën naa nekk ci làmmiñ nit ki mën ngaa wax kàddu koo xam ne da nga koy jam euh, mu sori ci moom lool rawatina nag pas-pas nit soo ko tooñee ci pas-pas mën naa am du ko mën a muñ daana wax sax ne boroom xam-xam yi su ngeen gisee lu mel ni wuute ci ñoom ñoom wuute wuñu ndax ñoom seenug soppante ak seenug jàppante mooy dundal lislaam waaye bu ngeen gisee luy nuru wuute mooy méthode seen méthode moo bokkul ndax kenn ku nekk méthode ba ngay jottalee sa mission mën naa wuute ak sa morom waaye ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy jottali muy téere bi yàlla bi ak sunna sidana muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo tax mu daan dénkaane naan yéen jaame yàlla yi na ngeen doon benn bu leen añaanante bu leen noonu kunu ibadallahi ya ixwaani bila taxaasudin wala udwaani mu wax ne soppante dëgg-dëgg mooy gëm yàlla ku sop mbokki jullitam na nga xam ne gëmam mat na sëkk waaye ku bañ sa mbokki jullit na nga xam ne pas pas-pas xajam na mu inna tahabuba huwa al imaanu li ahli surur wal iqan wax ne képp ku bëggal sa morom li nga bëggal sa bopp da nga am ngërëmul yàlla man habba lil axi alladi yuhibbu li nafsihi radiya anhu rabb kon mbokk yi nañu xam ne ànd ak mbokki jullit yëpp xam ne yéen a bokk lu ngeen mënta séddoo diine lislaam kenn du ko séddoo alquran duñ ko séddoo sunna duñ ko séddoo senegal gii ñu bokk duñu ko séddoo te te sax Sénégal dafa xam ñaare koo gëstu mu bokk ak yow dara Sénégal ñëpp bokk kenn mënta xas sa morom Sëñ Tuubaa daan wax naan koo gis muy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xamal ne sa mbokka bu ngeen waxtaanee ba gindikoo ba ak bokk feeñ xamal ne sa boppa kon sa mbokk lay doon wala sa bopp rek kon kenn mënta eh, sut kenn mbokk yi xam ngeen ne élection yi ni ngi dëgg mën jege na lool waa kër Cheikhul Khadim rawatina waa kër Alxaaji Baara bu ñu sañoon élection yi bu accès dañu koy def ci jàmm ak salaam def ko ci njëkk ak teraanga xam ne li ñuy xëccoo kenn ku nekk da ngay wax ne da ngaa bëgg Sénégal kenn ku nekk da ngaa wax ne gox ba ma dëkk dama ko bëgg defar ba def ca loo xam ne sama morom du ko man kon kon jongante ngir liggéeyal gox yi moo dëgmal si ñu wax nag ne bu ñu sañoon ñi koy séq ak seeni militant nañ ci tàbbi ci ngor nañ ci tàbbi ci diine nañu xam ne ñoo bokk lépp luñ mu tësedoo bis bu ñu demee ba élection yu jàll ba ci ëllëg sa ña doon xëccoo bu ñu dajee kenn ku nekk siggi mën a xool sa morom mën a saakonte moom waaye bu fekkente ne campagne kenn ku nekk da ngaa daas saw lammi di xas ay gor di leen dëkkale néeg yuñ dëkkul di leen weer boo xamee ci ñoom fukk yu baax gas ba mu xóot nga suul boo xamee benn safaan nga siiwal ko loola du defar ak bopp loolu du indi jàmm ci am réew kon élection yi bu ñu bëggee mu ànd ak dal dañ ciy dugg kenn ku ne xam ne da ngaa bëgg a defar sa morom bëgg a defar ñu bëgg a defar nag waruñoo xuloo ñu bëgg a defar waruñoo xuloo waruñoo xeex senegal nag bu njëkk réew la woon moo xam ne nit ñu woyof xool ñoo fi nekkoon nit ñoo xam ne yërmaande dañ ko bari la léegi la ñu seetlu ne sénégalais yu bëree bëri rawatina ndaw ñi rey nit ak rey weñ la yemale dangay gis ku ñu rey ñu ne lan ñu ne dañ doon xëccoo quarante franc quarante franc quarante fanaan lañ doon xëccoo kenn ka jàmmoroom ji bu faatu da gis ku ñu rey ñu ne lan la ñu ne dañu doon werante ñi dawal Jakarta ñi ngi rayante charrette yi ñu koy dawal ñi ngi rayante foo dem ña ngay rayante ba ko rek am na match football bu amoon ci senegal ci benn dëkk du ko tudd dañ faa rey nit ba ko am na am am na làmb ju amoon ci ab dëkk du ma ko tudd dañ fa xaañ nit nga xam ne sénégalais bu jëkk daawul rey daawul xaañ am na ñoo xam ne boo leen waxee ñu ne man sax rey ganaar mënuma ko ndax xol bu woyof ndax xol bu rafet léegi nag ñu bëgg ko ginnaawal loolu ana du ko indi mooy dañoo gannaawal jàngaleem diine njàngaleem diine la ñu fonkutu njàngalem diine bu ñu ko fonkee ndaw ndaw ñuy nàmpatal ci moom diine def ci moom jikkoy julli nàmpatal ko jikkoy taalibe su màggee du rey weñ waaye dañoo bërgal gone yi te gone yi buñ leen yaree buñ màggee jub suñ Tuubaa nee na wa minhu tarbiyatukal awlaada li kay yanaalu baadaha rashada nee na ndaw boo leen yaree buñ doonee mag dañuy jub kon wayjuri waajur la xasaayo laxasaayowaat ci seen njaboot ray bakkan dafa dafa diis rawatina ab jullit yàlla nee na ku ray ab jullit te tey ko wa man yaqtul muminan mutaammidan ku ray ab jullit te tey ko fa jazaauhu ak payam jahannama mooy jahannam de jahannam dugg génn sax yàlla ci yàlla musal dugg ca génn yàlla ci yàlla musal yàlla na nee na bu dugg génn xaaliran fiihaa la wax da cay sax dàkk ku rey ab jullit dañuy tàbbi safara te sax dàkk wa xadiba allahu alayhi te yàlla mere na ko muy ñaar wala anahu rëbb na ko muy ñett wa wa aadda lahu mbugal mu tar mu metti mu mag kon ab jullit soo ko reyee da sax loola bu dee tuuti ñu koy jàngal diine di ko jàngal ab jullit day bari yërmande wax ko yërmande Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yërmande saxaaba ya yërmande Serigne Touba ci moom koy màggaale di ko màggaale ba doon muskàllaf su màggee du rey weñ waaye gone yi dañ leen jàngalu diine dañ leen a yarul yarul diine moo tax fi mu lu xew manifestation yu fi amoon ci weeru mars ñaata nit ñoo ca fukki nit ak ñeent fukki nit ak ñeent bakkan ak ñeent ñoo xam ne ci maali foro la seen bakkan dem te ña leen rey ñi ngi daagu dox seeni soxla di añ di reer defe ne duñu daje ak yàlla dañu xam ne élection yi ñu dëgmal ñi koy xëccoo doomi réew mi lañu ñoom ñoo ma dëkk ñu sant Diop sant Ndiaye sant set su élection yi jeexee ñooy dëkkaat doon ay bokk di dem lent kon nag bu ci bëggee taal réew mi nañ xool réew yi ñu wër ndax bëgg na bëgg na ñoo mel ni ñoom bëggu mel ni ñoom bokk na ci liy indi fitna cim réew réseau yi seen bi wax léegi boo koy xool danga naan àdduna ngi tukki di xaw yi sutura gor di xas ay gor am na ku nekk bitim réew koo xam ne li mu yekk Serigne Touba kenn mënu ko dégg nga xam ne boo ko gisee da ngay li mu yekk El Hadj Malick kenn mënu ko dégg Cheikh Bou Kounta kenn mënu koo dégg waa Niassène kenn mënu koo dégg waa Thiénaba kenn mënu koo dégg bàyyiwul kenn ñëpp lay saabi tey doomi Sénégal naan dama ne boo ne ko dama ne mu ne ah. démb rek dégg naa ojo boo xam ne boroom lam cee yàq sëñ Mountakha kenn mënu ko dégg te nee na Tuubaa la kon yooyu ñuy bàyyi muy jàll gis nga képp ko def vidéo wala audio bu ci état bi xaree tàngu tubayam dana ko jàpp dana ko jàpp te suñ ci jàppoon kenn wala ñaar wala ñett rëq seen ndigg yar leen dana yar ñu bari ndax gone xamul yàlla waaye xam na yar te am na ku nekkoon bitim réew daan sànni xeer di wax naka sa dul noona ba ñu bëggee mu ñibbisi dafa ñibbisi kon bu ci état xaree tànku tubayam dana saafaru waaye képp ku yëkkati kàddu koo xam duy teggin di ko teg ci kaw kaw kilifa yi bis bu dong yi xamee ne diw mii la badar dekki te su badar dekkee nag day taal am réew ndax nit ka ko def bu dee taalibe cheikh ci misaal bu ko songee dañuy defee ne murid dañuy tooñ taalibe cheikh ka tooñ sëñ Babacar Si Mansour bu ñu seetee ba gis ko muy murid ñu dal ci kawam murid defee ne dañuy dañuy dañuy agressé murid fekk kuy tooñ jàmbur bokkoo ci njabootu Sëriñ Tuubaa kon rikk na waajur yi delloo si yarub diine yóbbu seen doom yi nañu jàng luñ bëgg jàng ci xam-xamu adduna nañu ko jàng waaye nag lay lay taay ja lay tax mu am njariñ tey ak ëllëg mooy xam-xamu diina na ko lal yarub diina na ko lal moo tax Sëriñ Fallu mii woote bis bii li mu naal ci bis bi xam ngeen ko li mu naal ci dëkk bi xam ngeen ko xam nañu ko naal na fi barab muy am fi kër naal na fi daara daara joo xam ne bis bu sottee tund wi ku bëgg jàng diine da nga am foo jàng diine di jàng alquran di ko wattu di jàng xam-xam di ko xam ba noppi ñu lay namputal ci jub ba soo màggee foo dem man faa nekk tubaab bi ne ku mu yar bu waxee feeñ bu jëfee feeñ waaye sëñ tubaab bi ku mu defar bu waxee feeñ bu jëfee feeñ kon nañu delloo siwaat yaru mag ña teggin ya ñu joxante woon ak ma ja am na kilifa gu mës a nelaw ñu koy rob ci li Touba yi booba Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi fi serigne dal abdourahman Law mi ngi fi serigne Mbacke bosso mi ngi fi man ñëpp ngi fi ba ñu ko robé ba noppi ba Cheikh Moustapha di duko otom di ñibi darul qudus am ko ko dab de ko ne ko serigne Ndaam ak serigne Mbacke bosso amuñu lu leen yóbbu Cheikh Moustapha wàcc otom ne chauffeur bi demal yobul mo sama baye yoyé dox ak tànkam ci armée li ba darul qudus وحتى عندما تعلمين بدار القدس دباب موي خليفة المريدين شافور بنيو نسنج دام سن بيني أنا نال يو بتو يو بسنج باك بزوج منو كده مال يو بسنج باك بنيو نه مو مغرة جاك سن توبا مونيو نسنج باك سن بيني أنا نال يو بتو يو بسنج دام منو كده مال يو بسنج دام بنيو دور ما يو نه مو مغرة جاك سن توبا يو خان تجير مو في نكون نون لما نجدان دخله لكن كان تخطو كان قنا يبني وح من تجنا نيوخ لو خم خم لوم دو نعم نيوخ ل نعم نعم رك تقوم نعم دم دم نعم دم ولا ما نعم لجو وح ساعة لجو وح ساعة تيون تبين أنا يا لربنا كوي ساعة أيوا يرام ñu ne ko nan nan nan la nit di woowee man bay saaga wayjuru mu ne da ngay saaga wayjuru jàmbur mu saaga sa wayjuru kon waxante yu ñaaw yi dana indi fitna muy saagante muy xuloo muy téesante muy nit ku am kilifaam fonk ko da nga koy fonkle yàlla sax nee na xërëm yi ñiy jaamu xërëm yi bu leen saaga seeni xërëm ndax bu ngeen leen saaga man la ñuy saaga man yàlla kon déclaration Touba Gueye 2021 bii mooy woote jàmm woote dal ci réew mi li ñu bokk mënuñu ko séddoo Thiénaba gii fi gën a jege seenu mbokk ak maam Cheikh Fall bu jegee jege jege mbokki maam Cheikh Fall lañ alxaaji Maalik ak Serigne Touba moom ñëpp a ko xam ñoo bokk ci wetu gu ndey ñoo bokk ci wetu baay kilifa yëpp benn lañu kon njaboot gi ñëw boolewul seen bopp waaye kilifa yi ñoom dañoo boole seen bopp sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar yàlla na ko yàlla doole leer bi mu nelawee sëriñ Babacar Sy ba mu jaa ba mu jaalisee gis nit ñi naan xëlëf xëlëf xëlëf bëgg dal ci kaw sëñ mu daxaar lu mu leen wax sakkan na leen kii sakkan na leen kii waa kon ñoom xam nañu fa ñuy teg seen tànk kon maa ngi guddal li ma waroon wax lu ma ci waxut maa ngi koy jégalu li ma wax tam te waru waruma ko wax maa ngi koy jégalu yàlla nañ ko tee teelewaat yàlla nañ ko teewewaat na nga ni déwén te déwén dàqal ñu ren ku ne xam na ne ren at mu tàng la ak daaw corona bi yàq na lu bari nawet bi ñëw gis ngeen ni mu demee àll bi ñun ñii may xam nañ ci dara àll bi amuñu dara kon at mu naqari la waaye yàlla la mu dencal ab jaamam moo ëpp nawet kon yàlla yàlla wasaare ay xéewalam ci senegal te jàmm ji ñuy waxtaane bu ñu ko suuxatee bu ñu ko sàkkoo Sénégal xéewal rek la am ndax Sénégal kenn du añ bàyyi sa morom kenn du reer bàyyi sa morom kenn sol bu bàyyi sa boo ko te réew yi nga xam ne bopp sa bopp la Sénégal ñëpp benn lañu kon nañu suuxat jàmm ji loolu mooy déclaration Touba Gueye ci atum 2021

di jiital ci nuyoo bi eh, Serigne Thiénaba xalifa généralu Thiénaba Serigne Assane Seck di siyaar bu baax Serigne Mountakha mi nga xam ni bis bii tey moo moom lépp di sant mboolem ko fi teew di kontaan bu baax ci sëñ Galas ndax jëkkuma fee ñëw tey te Serigne Gallas amul benn yoon boo xam ni gàmmu gi dina am lu dul dafa taal otoom ñëw ci man wala mu sàkk ndaw lu mat ndaw yónni ko ci man loolu nag cër la kon sëñ Gallas maa ngi lay sant bu baax di la gërëm te di sant waa Touba bu baax. di leen gërëm ci jàpp ñi nga xam ni jàpp nañ ko ci gàmmu gii ndax lii sëñ Garas bu ko defee Touba Gueye waa Touba la ko defal waaye commune bi yëpp la ko defal kon sëñ Garas li nu fi dégg tey ci ay kàddu neexatu la doole dara ndax loolu doon xalaat di ko wax. jàpp ni soo ko waxee mu jur jàmm waxal na ñëpp ndax élection yi ñu jëm ku jël kàddu te sàkkuwul ci ñaan sa wax du sori loolu ñu war a sàkku ñaan nag sëriñ Garas defal nga kon ñu ñaan ci yàlla élection yi ñu jëm ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye ñu bàyyi xel bu baax ci li nga xam ni moom lañ ci dégg bu nu defee élection yi ba ca suba gox bu nekk ñooy continuer waat di nekk kon dara jëru fi ñaaw dara jëru fi wax lu amul te nañ ko waxee fit na mu amee dafa am ku wax lu jaaruwul ñu tontu ko mbaa ñu jëf fit la jub waaye li mat a xam rek mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di wax kilifa yi lu ñaaw wax lu ñaaw rek lañ ci am waaye benn taalu bi bi gën a néew bu jàkkaarloo moom doo dégg kenn ko wax kon am na loo xam ku koy wax ci ginnaaw nit te soo jàkkaarloo taalubeem wala nga jàkkaarloo ak njabootam doo ko wax kon wax ko ñàkk jom la waaye nag neexul kenn euh, maa ngi nuyu it sëñ Xaadim Gueye bu Touba Gueye euh, su ma neexee ma ni sama jarbaat la su ma neexee ma ni sama mag la parce li ma bokk ak moom laa bokk ak sëriñ bi sunu waajur wi ci biir xam na li xew kon sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu it sa rak di Maam Mor sama conseil municipal ak Magal Ndiaye mi nga xam ni conseil municipal dëkk ci dëkk bi eh, ak Iba Thiaw ak mbooleem conseil fi nekk yëpp di sant responsable yi nga xam ñoo ma fi nekkal. ci biir nag ak ndax ab dëkk ku fa am ñu la fa nekkal te dara yënguwul xalaat naa ne xalaat ya rafet na mbaa kàddu yooyu jub na kon du ma mën sant leen gërëm leen di sant délégation bi ma àndal bu baax di leen gërëm ndax nag ku gis ne ñu ñëwee ci gàmmu Touba Gueye te it noonu lañ daa ñëwee te eh, ku gàtt xel da ngay defee ni élection yi lim jub see tax waaye déedéet ñun nan doon déparé 2014 noonu la ñu arrivé 2022 te incha bi noonu la ñuy continuer di ko def eh, kenn ku ne nag sañ naa bëgg ndax réew mi kenn moomu ko ñëpp ko bokk commune yi it kenn moomu ko ñëpp ko bokk te kenn ku am nga xalaat am gis-gis waaye nan ko wute ci njëkk ak teraanga ak yar ak ci teggin yar lu la mel leneen du la ko may man de sañ nga ma dogg ci kanam sañ garas ne ba élection yi jeex kenn du dégg ma wax rek jàll te kenn mësu koo dégg ci man ku ma tooñ it jéggal naa la tooñ ji nag mënta ñàkk waaye ku ma tooñ jéggal naa la li tax ñuy wut ba tooñ ji am askan wi ñooy àtte askan wi nag bu nu àttee lu mu àtte rek na nu neex man nag wóoru na maa dem ci askan wi ndax fi laa dëkk mosuma koo génn jëflante naa ak ñoom bu rafetee ak bu rafetul yàggatul leemu leer kon du may loolu sant bu baax di leen gërëm sëriñ garas kàddu yi mënul bari ndax kontaan nañu ci leen fi dégg di ñaan yàlla yal na la yàlla gën a jàppale yal na yàlla dolli sutura yi sunu sag nga sunu wéttal nga sunu tiitar la ndax nit soo ko amee muy kilifa ñëw ci yow di la defal loo xam ni mënaloo ko sa bopp bo defee leneen dul sant ko defoo dara wat kon kàddu yi la laa koy yamale di gën a sàkkuwaat ñaan yàlla doon la ñu sutura ba élection yi ñu àgg ci ak jàmm te yëpp nag yàlla ma ndam li ndax loolu laa soxla moo ma tàllalaat sama loxo di ñaan askan wi yàpp fu ci waaye mën a nekk te bokkul commune Thiénaba yéen serigne ci maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ma yalla joxat ma commune bi ndax it lool la soxla mo tax ma tàllalaat sama loxo en tout cas dal ma ngi sant ñëpp ma ngi gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xante ñoom ñëpp sëriñ bu Samad serigne jili serigne Galas kenn ku ci ne bëgg na rek woné ne kenn ku ci ne am nga leen ci Alaaji mohammed Lamine bara waye mbacke Mbàkke jëf ci ci wi nga xam ne bu do joxe ci kenn do jox ci ya bax ya gore ya bëgg say rak yaa bëgg say mag yaa bëgg sa baay waaye yaa ngërëmal sa baay kon sëñ Darou Sakal Diop kàddu mi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee na moo ngi yëkkati nuyoo bu sell ci turu Cheikh Mamadou Moustapha ak turu njabootu Cheikh Mamadou Lamine waye rawati na njabootu Cheikh Mamadou faral ci tour serigne abou Baraka ak ci tour Cheikh Mamadou muntaha serigne bi nee assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh neena na ngi nuyu mbokk jullit yépp neena na ci jital sunu mbokk yi nga xam ñoo ne sunu wet di wa chaaba te teewal fi kilifa gu tell ki nga xam ne moo fa nekk sëriñ bi nee na moo ngi leen di jottali nuyoo sëriñ bi ak ay cantam ci taxawaayu rafet yi nga xam ne njaboot gi fi nekk di taxawal lii nee na yëg na bu baax ne waa Thiénaba xam nañu ne njaboot gi yëpp genn rek la te yëg na taxawaay yëpp sëriñ bi nee na mooy nuyu ci mbooloo mii ñu nekk di jiital ci nuyoo bi sëriñ Cheikh Abdou Mbacke moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma di léppam ak sëriñ Abdou Samad mi fi teewal soxna maam Bousso sunu bàjjan te nekk doomi ki xam ne moom la ñu tuddee tey bis bii muy Cheikh Abdoul Samad ngir lan lu rafet rek ngir lan lu baax ngir lan dundal am njàngale boo xam ne kenn ku ci ne war na cee roy ngir bëgg lu baax nee na cant yi nag dañ koy tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoo doon xëy di wàcc di jàng alquran di def ay salaatu ala nabi di jàng xasiday sëriñ Tuubaa yi ki ko waajale bis bii ba looli ñu ciy jiital imaamu dëkk bi ak mag ñu baax ñim fi nekkal ak sëriñ daara yi ak donga daara yi mooy gërëm bu baax a baax sunu jarbaat Cheikh Sidi Mokhtar Ka nee ci message bu sell bi nga xam ne tey jii moom joxe fii ci Touba Gueye nee na muy moo xam ne moom rek lañuy xaar ci ndaje mu waaye nag rawatina ci ndaje mii tey ngir ko wooteel ak ki nga ko wooteel ak bind bu tooy xat bu am njëriñ tey jii ak ëllëg joxe nga ko fi am nga sax am nga ay pàcc yoo xam ne moom nga ko wutal mooy tey jii fi jamono toll ak liy bëgg a xew waaye ku ci ne rek man nga cee gis sa bopp boo ci sukkandikoo man cee defaroo ci fann yépp kon ñepp tay ñoo ci jangat ah nee no ngi lay gërëm bu baax baax nee di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo toftal seen kaddu ci yow te ñi ay sëtu Cheikh Mamadou Lamine bara di sunuy jarbat nee ki doon jangal alquran ci di doomi soxna ma mbar ki doon def discours bi en français di doomi soxna musli ki doon def discours arab bi di doomi soxna ummi kon nee na li ñuy wax ci njàngale mi tàmbali naa feeñ foofu kenn ku war cee sikkundiku nampatal ci sa ngir xam ne loolu rek mooy yoonu murit ndax ab julit noonu rek la doxe sëriñ bi nee moo leen ci sant bu baax ci taxawaay yooyu ak nosu googu ci turu Baye Serigne Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ci seen kanam ngeen ànd ak moom liggéey bi nee moo ngi sant bu baax sant Serigne Fallou yi yi fi teew ci jotaay bi ak yi fi jiitu woon te ki fi desandali nee na kuñ ci tudd rek dana yóbbaale ñëpp nee na mën nañ cee tudd Baye Galas moom Cheikh Abdoul Fatah nee na sët yëpp dañuy dugg ci biir nee na cant yi nag ak ngërëm yi yi nga xam ne jóg na fi ñu dégg ko déggal ko sëriñ bi dañuy sukkandiku rek ci cant yooyu sëriñ Fallu wax nee na dégg nañu ko de ña ngi koy féddal ci mboolem ñi ñu fi sant ñëpp góor jigéen ku teew ak ku teewul ak ku amoon yéene teew nee na lépp loo xam ne waaye def na ko ci bis bi yàlla na ko borom bis bi fay ci fànn yépp Sëriñ Galas nee na ñoo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp way jege ak way sori nee na di ñaanal sunu way jur bi yii fi toog yàlla sunu borom gën leen a sàmm gën leen a te dollu seen sutura yàggal leen bu baax sunu kanam nee na xam ne nee na mooy ndeyu gox bi ñu naan ko meer saa nee na dégg na say kàddu de nee na rafetlu na ko bu baax nee na ñoo ngi lay ñaanal yàlla sunu borom yàlla yàlla dolli sa sutura yàlla na la yàlla sàmm yal na la yàlla yiir nee na yi ak yitte yi ak yitte wooyi ak jëf ji ci bis bi sëriñ bi nga ko defal yal na la fayal boppam nee bu loolu yëpp jàllee nee na sëriñ galas mii toog nee na di seen ci turu sëriñ Moustapha ak turu képp koo xam ne bokk nga ak moom alxaaji Mamad Lamine Baara ngay góor wala ngay jigéen wala ngay doomi geño wala ngay taalibeem nga xam ko xàmme ko jaxasoog moom wax ji benn rek la Serigne Gallas yàlla na la yàlla fay nee na Serigne Gallas yow ku la nee na macha allah ci ak yar képp lañ la xam akub dal nee na kenn ku ci ne. am nga cër ci sëriñ Galas Xadi gi mii ngeen lu bokk waaye ndax la nga séq ak moom tamit nee na bu nit doon wax maa ci ëppale wala maa ci gën a yey nee moom sëriñ Galas kaltoom mën na wax ne maa ci ëppale maa ci gën a sañ nee na it li ko waral gannaaw lu ñu bokk nee way juróom di sunu sëriñ moo ñu boole woon boole boo xam ne bam ca boolee ba tey nee na boole gi yëguñu ci lul di soññ sunu bopp ci Serigne Gallas mii ndax Serigne Gallas sa jikko yow ak sa melo yuñ la a seereel te yàlla rek tax nee na Serigne Gallas lu nekk ci yow loola rekk lay wax nee na moom mën naa seere ne Serigne Gallas Khady Gueye lu la dëgg lay doon nee na Serigne amul ñaari wax amul ñett benn wax la wax te dëgg rek lay doon nee na Serigne Gallas Khady Gueye ku mën a joxe cër la te muy dëgg ci moom nee mën na koo seere jàpp na ne ku bokk ak moom mën nga koo seere nee bu fekkee yàlla rek a tax nee kon Serigne Gallas Khady Gueye loola rek lañ doon séntu ci yow yi doomi nit ku baax. yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla yiir yàlla na yàlla dolli sa sutura yàlla na la yàlla gën a taxaw nee na yitte ji nga xam ne tund wii yitte woon nañu ko te mag ñu baax ñi nekk fii nga am fi cër ci tund wii sa way jiru baax wi sa sëriñ joxoñoon na ko gannaaw boo fi meññi ko nee na li fi yéene te mu gën ci dëkk bi gën ci nit ñi yàlla na la sunu borom dimbali ba doo fi dégg yitte yoo xam ne doo ko faj yitte yoo fi dégg rek yàlla na la sunu borom defal taw féexul xaas ba nga mën koo faj mu mën a saafaru lu jiitu nga koy dégg ak na yitte ji toll toll nee na yàlla mooy faj ay yitte waaye am na lu sama mën yàlla na dugg ci sa yitte ci dugg ci yittey gox bi ak yittey képp ko aju ci yow ñi xam ne ñoo laxasaay ànd ak yow di liggéey te sëriñ bi tax leen a jóg ñoo ngi leen soññ kenn ku ci nga soññeeku soññ say mbokk soññ say am di jàmm ngir gën laxasaayu taxawul na ko te fi ngeen ko war a fare ci ànd ak moom ci lu baax ci ànd ak moom ci liggéey sëriñ sëriñ bi nee na bu baax képp koo xam ne bis bi sa xalaat wala sa yéene wala sa jëf dugal nga ci waaye nag faw ñu tudd ci ñaari nit muy sëriñ Cheikh Abdou Ka ak sëriñ Modou Mamoun Niang nee nañ mbokk lañ yoo xam def kenn ku ci ñoom taawu na ko doxal ko mbooloo mi ànd ko ak Serigne Fallou guddi ak bëccëg ak suba ak ngoon dara ump ko ci ndax xalaat bis ba di ko jàpp bay dem ci kilifa yi lu man ak ñoom ñoo ci xalaat ba lu ci ne ci ñoom ci dox ak lu koy doxal ñoom ñooñu ci fare woon fare ci njaboot gi yëpp kon loolu sëriñ bi ñoo leen ci sant bu baax cant koo xam ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem kon ñoo ngi soññ suñu bopp ci turu Cheikh Moustapha di soññ képp koo xam ne ak si turu suñu mbokk yi ne ñu gën a góorgóorlu ci li tax yàlla sunu borom wàcce fi mooy ay jaami yàlla lañu yoo xam ne dañoo war a nosu ci li tax yàlla bind ñu ñu def ci sunu kéemtalaay kàttan ngir jëfe ko ndigalu sunu borom yi waaye ngir wàccoo ko ak lim ñu dëgal gën laxasaayu ci li nga xam ne mooy liggéey Cheikhul Khadim kenn ku ci ne fa la wékk sa walla gën kër diine gone la fa ne ak na muy doxe te muy war a jëriñ nit nga xam ko nga ne ta ko nga xamlu ko ngir am ko ndax adduna ñii nee na am na solo ñii ne amul solo waaye fi la wàcce fi la nekk ba bañ jóge daal kon am na luñ fa war def liñ ko war a def nag te mu gën ci nit muy jaamub yàlla bu yàlla nangum jaamam te fas koo ko yéenee fay ah yàlla na ko sunu borom defal di ak taalibe ak fañ ko yëg ak fañ ko wékk ak lala cay tax a jëriñ yàlla ko sëriñ bi defal sëriñ bi nee na ñoo ngi sant di ñaanal ñëpp di sàkkul ñaan sunu kilifa. gi nga xam ne fii nu toog moo fi jóg dem Touba ngir ay yitte bàyyi feeg sunu mbokk yi kàddu gi ñun ak sunu mbokk yi ñoo ko bokk ñëpp dañoo góor bokk di wax rek waaye nag noo ngi sàkkul Cheikh Mamadou Moustapha ngeen ñaanal ko yàlla sunu borom koo yàggal dëbb ko kàttanu wér ak defaru ci liggéey sëriñ bi loolu ñu koy ñaanal tey law ba ci sëñ Abo moom Cheikh Mamadou Fadal ak gépp kilifa goo xam ne yaay taxaw sa kër baay ci kër njabootu Cheikhul Khadim sunu borom dëbb leen kàttan ak wér ak fekke akuk tal bañ am seen ngërëm ñaan yooyu yëpp mooy ñibbisi bu lépp dajee dem ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp di ñaan yàlla sunu borom mu gën ko fee yàggal gën koo wéral bañ a ànd ak moom ci liñ koy ñaanal sàkku ci ngërëmal sunu borom bàyyi am ci tawféexu Sëriñ Tuubaa yàlla am na ko de mën na ko de yàlla nañ ko yàlla defal nee na réew mi fii mu toll ak fii mu jëm li ci gën te gën ci réew mi te gën ci ñu dëkk réew mi ak gën ci ñu yor réew asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bu nuyu di leen ziar te di leen gërëm ci teewaay bu rafet bii ngeen teewaay ci onzième édition cant annuel bi ñu jagleel suñu jàmbaar ji Alaaji Mouhamadul Amin kon ñu ngi commencé di nuyoo ak cant gi jiital ko ci suñu sang bi Serigne Galas defe naa ni ndigal lam jotoon te boole ñu ci yàllaa ngi ñu ciy suturaal ñu du ko def ba jamono ba suñu jonne tey kon jiite bi mu ñu ci jiite yaatal gi mu ñu ci yaatal cërale gi mu ñu ci cërale tax na ba ñun suba gu nu xëyee waxtu wu ñu toll ñu ngi xool fi mu joxoñ ñi ngi ànd ak moom ci li mu bëgg ndax lépp liggéeyal yàlla la lépp ci waaru nabil Moustapha la lépp ci sargal Cheikhul Khadim kon Serigne Gallas jërëjëf yal yàlla guddal soo fan ndax li ñu may yombul li ñu jox yombul kon ñu ngi sant di la gërëm ba sëriñ fàllu sàkkoo lii ci ñun te nga koy doxal ba mu mat sëkk Mbàkke jërëjëf di jël nuyoo di ko teg ci sëriñ Galas Kaltoom mi fi toogal sëriñ Moustapha di ko ko joxloo Cheikh Abdou Bari Mbàkke ngir mu àgg ci sëriñ Muntaxa mu baawaan ci ñépp kilifa diine yépp te ka ci jiitu di sunu mbokk di sunu baay di suñu kilifa muy Baye Assane Seck xalif général de Thiénaba kon ñëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm sant tund wi yëpp yi jàng alxuraan di gërëm di sant waa Touba Gueye jëpp kenn amul seen pay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla yokk seeni am-am yàlla na leen yàlla suturaal mbokk yi maa ngi jagleel aussi sama ngërëm le premier magistrat de la ville en effet wax na ko léegi ba ñu commencé ba léegi moom la yàlla dogal mu nekk fi te lépp lu ko war ci bis bi mi ngi koy def di ko ànd ak ñun kon monsieur le maire Talla Diagne jërëjëf sa taxawaay rafet na li nga mën yëpp yaa ngi koy def. kon ñu ngi lay sagal di la gërëm di la sant di la jox ci jaarale ci sa loxo autorité municipale yëpp ak même préfectoral mu jall ba ci gouverneur jall ba ci président de la république nak tay ji yaa toogaay seen taxaway ñom ñëpp kon jaan jërëjëf di gërëm tous les responsables muy secteur économique secteur éducatif parce que nous sommes tous le directeur de l'enseignement général moyen général nous avons honoré aussi suñu bis di avons tous les responsables politiques ici présents pour représenter kon ñëpp nous ngi dit di gërëm di tout sant may wax tuuti nag ci thème bi nga xam ne rek laa un éminent professeur korom Serigne Cheikh Sidi Makhtar Ka su waxee ba pare doo sof ci moom ndax sof day lu matul waaye dañuy xaw a inspiré rek ci moom ndax comprendre ko sax jafe na xanaa kay lañ cof ca moom rek ci la defu rëdd ngir dollee yokk jàmm Sénégal mais man nag fi may accès sama intervention damay dem sax au delà de la paix mais damay dem ci aspect économique de la paix ndax ku amul jàmm doo liggéey ku amul jàmm doo jàng wut xam-xam te àdduna xam-xama ko yor xam-xama tax àdduna dox àdduna xam-xama ko yor xam-xama tax jàmm di am àdduna xam-xama ko yor

naa wu ñu indee xam-xam am ñu jàngi arab ba ñu dikkee mooy problème bi actuel actuellement ci Sénégal di dox ci réseau sociaux yi mooy dingan mag ñi nga xam ne nii luy Sénégal ñooma mais am ñoo xam ne nii jàngiwuñu mais dañu jël seen philosophie teg ko ci violence muy violence verbale violence politique ak violence sociale ñu am lu ñu leen tuddee ñu ne dañuy façonné indi un autre type de sénégalais mais suñu jàmbaar ju baax ji Serigne Mountakha répliqué leen ne leen dinaa créer un autre type de sénégalais boo xam ne dafay juddoo Touba ñu yare ko Touba mu juddoo Tiwaawan ñu yare ko Tiwaawan mu juddoo Ceneba ñu yare ko Ceneba mu juddoo Njaasaan ñu yare ko Njaasaan ma génn ko dugal ko université. muy jàngi di génne thèse mu amul fenn voilà le nouveau type de Sénégalais que Serigne bi di ñu proposer c'est ça la paix c'est ça le social c'est ça le développement loolu mooy économie Sénégal kon mbokk yi adduna suñ ko bëggee doxal dañuy wëlbatikuwaat ci suñu cosaan mooñ ko réew mu nekk ak réalité réew mu nekk ak cosaanam kon kenn mënta développé ci culture jàmbur kenn mënta développé ci langue jàmbur ku bëgg dem fi ñëpp dem da ngay xool li nga am nga développé ci sa bopp kon loolu laa bëggoon a sof ci wax ji tey ñaanal ñëpp di ñaan yàlla dajale waa ñu fi déwén te kenn bañ a manqué asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. doylu lu maa ngi jégalu sama baay ndax ci turam laay waxe muy Baye Matar nga xam ne tey jii li Mor Fallé jur jëm may sa njaake moo fi des ci baay kon maa ngi ñaan ñëpp ñaanal ñu ko aw farum gudd ci turam laa waxe moo may sant may wax moo may digal may def ndax ñun ci digal lañ ñu yare kon loolu laa waroon a jëkkee te fàtte ko du ci tuub Baye Matar kon mbokk yi maa ngi leen gërëm di leen sant jërëjëf. ah Cheikh Mamadou Mountakha eh, yal na ko fi yàlla yàggal lool ca man dëgg di ci jiital tamit Cheikh Aboul Baraka xalifa Serigne Fallou yàlla fi yàgg lool ca ndeg wér di ci tamit ki nga xam ne mooy xalifaam bu baax bi Serigne Moussa Alaaji Baara nee na sunu xalifa waaye nag sunu xarita nee na li waral tey jii fekk wal jotaay ba mu jeex nee na ngant rek la sëriñ bi nee na ñoo ngi ñaanal sëriñ som Alaaji Baara yàlla yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér te ànd ak jàmm ba li mu bëgg a liggéey Alaaji Mamadou Baara ñu ànd koog moom lu yàgg lool nee na tey jii wax ji moom bis bii nee bisum sant rek la nee na bisum ñaan rek la ak fàttali ko jàmbaar ja muy Alaaji Baara Mbàkke Fadilu nee ci biir fàttali ko Alaaji Baara nee na ñuy faral di jël bés bii di ko tuddee di ko tuddee kenn ci njabootu Serigne Touba. ren nag mu dajeeg Cheikh Abdou Samad Mbacké mu Xaadim Rasul nee ñoo ngi nuyu bu baax njabootam soxna aji bu Bousso di nuyu bu baax ñu fi yeewal ñoom Cheikh Abdou Samad moom suñ Modou Fati Xari ah nee na de seen taxawaay rafet na bu baax a baax nee na yéen de mat ngeen ay ndaw lool nee na moo ngi leen di sant waaye moo ngi leen di ñaanal ci kàttanu sunu borom yal na len yàlla defal tawfiq neena na pare bi dañ ci dolli won ay hommage di len ñaanal ak di len fatri njaboot gi nga xamne dañ fe bayiko moy mooy islam gi ak njabootu Serigne Touba neena ci soxna yi ak ci gor ñep neena lola waral kamil yi nga xamne jang nañ ñu dugalaale leen ñoom ñépp ci biir kaabi bi ngir yàlla dolli ci ñoom ay ngërëmal la ak ay leer nee na tamit ginnaaw nuyoo moo ngi sant bu baax a baax sunu mbokk yi muy sunu doom bàyyi sëñ bi nee na yéen ñépp mu leen di gërëm seen taxawaay nee na rafetlu na ko bu baax a baax nee na at mu jot ngeen yokk bu baax a baax seen taxawaay nee na ñoo ngi sant bu baax suñu way juru jigéen bu baax wi ajar soxna Khady Gueye moom mi nga xam ne moo ñu boole ci dëkk bi ginnaaw yàlla sëriñ bi nee na ñoo ngi lay ñaanal bu baax suñu borom yàggal la fi bu baax yokk sa wér te yéene ji nga am ci njaboot suñu borom dimbali la kàtt na la ba nga yeggale ko nee di ko ñaanal sa mbokk yi nga xam ne yaa ngi feggoog ñoom mooy ajar soxna Khady Ndiaye ak ajar soxna Maawa Ndaw ak ay rakkam yu jigéen yu góor mag ndaw nee na yéen ñépp ñoo ngi leen di gërëm ci seen taxawaay nee na nag moo ngi gërëm bu baax mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel serigne bi neena ay jambar ngeen lol way mo ngi leen di sant mo ngi leen di gërëm te di leen ñaanal yalla sa borom dolli leen tawfiix te dolli leen ay xewal te musal leen tu mutal leen ba liggey bi nga xamne ne ngeen and ak mom fi ko bëgg yeggal ngeen yeggal ko fofu ah neena nak magam ju baax ji tok di serigne Galas kal mi ngi toogal sëriñ Moustapha sëriñ bi nee na ñoo lay jotale cant yi nga xam ne bàyyi koo na ci ñoom jëm ci Cheikh Mamadou Moustapha di ko jaaleel ci Cheikh Abdoulaat Gaynde Fatma nee na moo ngi lay sant bu baax Cheikh Abdou waaye moo ngi lay gërëm bu baax a baax nee na yow taxawaayu Cheikhouna nga fi taxaw yow yaa fi toogal sëriñ Cheikhouna nee na ñoo la koy wax ne nga santal ko ko bu baax a baax di ko gërëm bu baax a baax nee na mboolem liñ fi waroon wax ñi fi jaar ñépp wax nañ ko wax nañ ci jàmm wax nañ ci mbokk wax nañ ci dimbalante ak jàppalante wax nañ ci ak cant tamit nee na Serigne Gallas Kaltoum mu baax mii li mujjee wax dama ne woon jarul ma ciy teg dara waaye sant rek waaye nag kon nee na ñoo ngi sant mboolem ñi fi teew te amoon yéene teew tamit nee na nag moo ngi sant mboolem ñi nga xam ne jàppale nañ ko ci bis bi tey ak ñi ci amoon yéene jàpp nee na ñaan na yàlla yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla musal te dolli seeni xéewal te defal leen jàmm nee na moo ngi sant di sant bu baax njabootu boppam soxnaam ju baax ji soxnaam bi nee na nag day wax ne ngeen dex a ah, man ta ñàkk mbàkk da yéen a grand toog ah, yi ne ak grand dame ah grand dame bi